ñi xam ne kii moo rey ñu jàpp ko bàyyi ko mu ko ne vaquer à ses occupations sénégalais yi d'accord ci loolu sénégalais yi bëgg tuñu kon mën nañ xaar ay projet de loi yoo xamante ni ci mbirum euh, loolu la dem peine de mort euh, indiwaat ko Sénégal no euh, peine de mort sama conviction personnelle laa dama ne man loolu laa gëm man yow yaa ngi ci amnistie bi actuellement mais amnistie bi vraiment l'État mbir yi pare na pare de xam nga le régime la moo tax ma ne gars yi wax naan mbiru digéeg ndax gars yi ngi mais il eu plus de quatre-vingts projets de loi qui sont déjà prêts. li ñu ngeen teg si yeeg déjà prêts yi xam ne am une législature sérieuse bu jiital Sénégal xam ne lii euh, intérêt Sénégal lañ koy voté kese moo terewul dugal. comme comme yan bu weesoo amnistie bi ak euh, loi sur sur l'homosexualité. ah yàggatul. di kay lii comme que compétence waa waa assemblée la incha allah les choses vont en tout cas gëm naa ni les choses vont pleuvoir ku dem xooli les conseils de ministres les communiqués de les examens de projet de loi à chaque communauté communiqué dañu wax objet de projet de loi yoo xam ne on l'a examiné ministre ban moo ko proposé moo ko moo ko moo ko moo ko exposé c'est écrit dans les projets de loi donc euh, xam naa ni su législature bi taxawee ba ñu installé leen ah yaa Seyda jàpp naa ni semaine yooyu dina takkar naa seede hmm. ndax on aura vraiment on a du pain sur la planche dañoo xam ne dëkk bi dafa am lu bëri lu muy lu muy hmm. xaar on n'a pas le temps euh, on n'a pas de temps à perdre am na ci benn bi nga xam ne ba tey dañ koy laam-laamee muy mbirum haute trahison mhm. parce que euh, sànq yaa ngi tudd mbirum reddition des comptes mhm. euh, ba nga naan euh, alal yi ñu koy saax-saaxeek yooyu noonu il faut également mu mu leer c'est vrai mhm. mais kenn ku nga xamante ni moom moo di ki fi nekkoon njiitum réew tey bu ñu ne dañ ko war woo wala ñu convoqué ko ñu bëri naan sur la base de quoi laka mm-hmm. la ko justice mën a dégloo mm-hmm. ci yan euh, procédure lay jaar ak demee noonu mm-hmm. est-ce que euh, réellement le président euh, président de la République Macky Sall moom mën nañ ko woo ah oui c'est un justiciable comme tous les sénégalais. ci ay textes yu ñëw wala ci jamono ji yi fi nekk li fi nekkoon li fi nekkoon balaa loolu. mën nañ ko ci atte également. damay jox exemple rek euh, Macky ba mu fiy nekk 2012 ba nu mu fiy jógee. Macky pose na ay actes xam ne actes yooyu haute trahison la. comme lan. Euh, su fekkee contrat exemple bu ndaw nga joxe contrat à une structure bi nga xam ne qui est étrangère sur une ressource bi nga xam ne qui appartient aux Sénégalais xooloo intérêt Sénégal nga nga nga viole les les les bëgg-bëggu Sénégalais jël un étranger jox ko mu piller loolu ngeen ngeen ngeen lekk ci mu jox la ci ristourne yow sa bopp euh, mais kooku tu as la le ndax les ressources ont été constitutionnalisées euh, c'est comme dans d'autres pays su demee dëkk yu mel ni Bénin ak yeneen dëkk yu jege yëpp ñoom ils ont ils ont défini haute trahison ne ku def cession de terre. justement wala ku jël Sénégal ñoom définir wuñ ko. est-ce que donc mën nañ ci ci moo tax suñu bos moo tax suñu bos nag ñun suñu bos a gën a garaaw kon ndax suñu bos furtu la. ñee ils on ils ont délimité un périmètre ne ku def cession de de d'une partie du mhm. territoire mhm. haute trahison la quand tu donnes des ressources naturelles du pays haute trahison la quand tu manifestement quelque chose bi nga xam ne amoon nga tous les éléments que baaxul ci dëkk bi ba pare nga signé ko tu as trahi le peuple ñoom ils ont défini ñun nag nga xam ne amuñu définition moo tax suñu suñu suñu haute trahison dafa bateau et Macky sur tous les affaires affaire u ArcelorMittal affaire Petro-Tim sur toutes les affaires laa de hmm. Macky est passible euh, à la haute trahison te Macky man dama gisul la moo ko war a traité tëdd Macky dina ñam. pourquoi. non parce que Macky en a trop fait dans ce pays. Euh, man bokk naa si nga xam ne dama ko woon artu. nga yaakaar ne autorité yi fi nekk euh, je veux dire le tandem. Hmm. baaluñu ko jéggaluñu ko. mais le tandem amuñu pour bàyyi lu ñu moomul ñoom. alalu Sénégal ak teraanga Sénégal le président Bassirou Diomaye ak son ko baal nit ndax moomuñu ko le peuple sénégalais moo donc on a même pas besoin di réformer ay loi pour woo ko mu dellu si waat wala di loi yi fi nekk yëpp jàpp na ko moom ndax loi yi fi nekk moo jàpp ay collaborateur am rapport yi pare rapport yëpp IGE defar ko yi of nag ak yëpp mu jël ko teg ko si concam loi yi fi nekkoon la ñun on réinvente pas de ay loi yu bees et sur l' affaire de l' emprisonnement damay exemple bu ndaw bi nga xam ne exemple boobu war na xalaat loo Sénégalais yi l' de septembre euh, l' affaire du stade en Guinée bi nga xam ne moo tax ñi jàpp le président Dadis Camara il y eu une manifestation l'armée est sortie il y a eu des des il y morts il eu une cinquantaine foog naa de morts matul matul cent morts ya y a eu des vols il y a eu des machettes yu ñu daggati parce que militaires yi dañoo gi garde rouge dafa génn. Mm-hmm. acte boobu président Dadis def na lépp treize ans kaso ndax loolu yemul ci moom moom son ministre la défense ministre des forces armées aide de camp assistant am maanaam ñoom Tumba ñoom Cebro ñoom Cebro Koné. ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ñëpp lañ jàppandoo leen kaso parce que on a tué des gens yoo xam ne seen responsabilité la woon ñoom. dafa am Sénégal y a eu des manifestations yoo xam ne une licence à des gens ñiy rey nu leen neexee à la tête y avait ministre de l' intérieur qui était muy Antoine Diome euh, ministre bu géré woon euh, en Guinée mu ngi kaso y avait le ministre de de ku yoroon les forces de défense sécurité Thiebro mais mu ngi kaso donc fii. on a eu un haut commandant de la gendarmerie on a eu un responsable de la police mais fii des exactions et des et des crimes qui ont été commis dans ce pays et ñu ko def ay takk der lañ gars yi xam nañ leen la chose est tellement documentée il y a eu des plaintes au niveau international mhm. avec des vidéos à l'appui et des photos donc ñi def lii groupe association de malfaiteurs bi mais nii mun ñu mucc et pour kër dëkk bi tegu ci yoon man dama jàpp sax ni message bu foor la bi xam ne moom la njiitu réew bi di jox askan bi war ñëpp ne nëgam ñi fi nekkoon laa dul làq dama leen di bàyyi yoon def seen liggéey kon yéen ñii ma àndal tey kenn ku si jalgati tamit yoon na def liggéeyam maanaam c'est un message à ses collaborateurs d'abord pour leur dire que leen làq ji su boo ngeen régloo te ngeen jub lii mooy discours président saa yu toog ak les collaborateurs mu leen di fàttali na leen man woowu ma kenn ci ndëng bugguma kenn dëngal képp ki nga xam ne war nga askan bi wala woor nga li la dénk jeune ne m'interférerai pas man maa lay livrer justice donc lii nag vraiment. jàpp naa euh, li ci xaw a doy waar mooy loi bi dafa libérer ay nit. il faut le dire. ay jeunes yu bëri yoo xamante ni ñi woon ci kaso bi. qui devait même pas être emprisonné kenn jugé wu leen. qui devait même pas bi en même temps. Mhm. noonu la effacer ay crimes. Mhm. buñ ko doon abrogé tey. Mhm. dañuy dindi loolu lépp wala juste les crimes de sang moom lañ ciy daal di seppi ngir mën koo. lépp la ñuy dindi gis nga xale yooyu jàppoon. man dama nekkoon ci kaso yi doon dund jàpp boobu. man dama doon dem kaaf def ay tour de parquet di gis xale yi di gis noonu def xale yi am na si xale yoo xam ne soxna Astou ba instant ma ak yow du ñu amati doom ñoom dañ leen jàpp yàq seen appareil géniteur du ñu amati doom et c'est des hommes de tenue qui ont fait ça ici dans ce pays jël ay crosse ay mitrailleuses di ko dóor ci partie intime ay nit ba ñun du ñu amati doom seen ak seen dund. am na ñoo xam leen dóor ba seen clavicule yi dafa dammati dañ leen ba ñuy ñëw cave mënuñoo dox dañ leen dammati. et loolu du maintien du service de l'ordre ay xale désarmés qui n'avaient aucune arme qui faisaient que manifester pour dire que suñu dëkk dañoo bëgg mu changer maanaam y a eu même pas eu une proportionnalité avec les forces qui ont été qui ont été en place xale yoo xam ne leen jàpp tëj leen te defuñ dara ay xale toog seen buntu kër teg ataaya am bracelet d'un parti muy passif ñu la yow en ah, kon si gars yi nga bokk jàpp la dóor la yóbbu la kaso mandat de dépôt la ce qui s'est fait dans ce pays est ahurissant et extraordinaire Mm. il a été aidé et accompagné par des complices au niveau des forces de défense de sécurité. Des gendarmes et des policiers ont joué le jeu avec lui, violé manifestement la loi pour faire plaisir au président. Des magistrats ont été là di violer la loi alors qu'ils ont prêté serment de servir la loi di tëj ay nit yi nga ne nit yooyu ñooñu gën a jub man bokk naa si ñu gars yi tëjoon magistrat yi ma tëj man xam naa ne maa ngi gën jub man je n'ai pas violé la loi reyu ma sàccu ma def ma dara pourtant tëj nañ ma presque deux ans de ma mel ni aw ma une autre ni ñu ma ko defee ñu ko defee samay junni morom yi xam ne. ils n'ont rien fait leur seul tort c'est qu'ils aiment ce pays. leur seul tort ils voulaient un changement ils n'ont violé aucune loi mais cette forfaiture là s'est fait aussi avec la complicité d'une administration territoriale qui était là. qui a été complice de ce que le président Macky voulait. te yaakaar nga ni le nettoyage complet a été fait. ah oui même bu ne elle n'est